asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su defal leen vidéo euh, di leen ziar si si aljuma ji lépp lu xamante ne ñaan nañ ko suñu borom defal ñu ko xamandoo ko ay suñu ay xamante ne euh, génne nañu àdduna yàlla yóbbu leen aljana yi gën a kawe xamandoo ko muy ñi nekk si euh, hôpitaux yi yàlla fexe leen ba ñu yëkkatiku ñëwaat seen njaboot xamandoo ko ñu ñaanal leen bu baax baax bañ leen fàtte. mbokk yi information yi day peu xam donc am ñu bëri ñu may poser question par rapport Euh, composition d'équipe bi maanaam onze de départ bu Aliou Cissé mu nek ben 11 de départ bu xamante amna am na franchement day day difficile comme ni ma ko waxee match de préparation la joueurs yi am vécu ak joueurs yi di ñëw nan ngay classé xam na ngay ba mélanger ko mais on sait tamit Aliou Cissé on sait tamit du ko avancé maanaam digg équipe am amna na ñu bëri ñu xamante ne jox temps de style Sadio Mané maintenant au tamit c'est le moment de de franchement de changer bo changé wul nii doo changé waat maintenant euh, si presse bi xam nga donc euh, annonce nañ trois défenseurs man franchement dina ma jaaxal trop par rapport joueurs yi ñu am xam nga trois défenseurs yi xamante ne am nañ ko may ñëw si loolu damay damay damay ñëw lancer benn fédération sénégalaise de football pourquoi euh, à chaque fois ñun bu ñu amee joueur bi forfait duñu ko remplacer France dañuy forfait di remplacer rek ñaar joueur la ñu remplacer France boobu ba léegi Mandanda tay jii la ñu remplacer nañ ko tout le temps avant Mandanda Lloris mu blessé dañu oo Lafond gardien bu Nantes xam donc tout le temps ñoom dañuy remplacer pourquoi ñun duñu remplacer jamais xam nga donc ñàkk nañu noo Afrique dañ ko remplacer xam nga naka noonu un tel nañ ko remplace parce que euh, je peux comprendre parfois ñu ne jour bi xëy na États-Unis la nekk wala fu sori peut-être waaw wala peut-être que on a pas eu le temps defal ko ay papiers parce que doon naa dégg Belmadi Belmadi Belmadi na ñu bëri yoo yaakaar ne woote ay jour noonu dafa yomb maanaam surtout bii na si nooy woo leen parfois day compliqué parce que defal ko seen i papiers nangam nangam loolu ça se comprend mais on waxuma bii na si nooy je parle des jours yu xamante ne seen i papiers lépp c'est c'est réglo style Moussa Wagué c'est un latéral droit mën na remplacer non Afrique style Afrique Sarr Diop fa lañ nekk Europe lañ nekk kenn kañ Croatie kenn ki nekk kenn ki moo ngi euh, Espagne donc nañ ko remplacer pour que ce style de jeu euh, nga am beneen façon sax nga am beneen regard mais de là à bàyyi noonu euh, tu préfères teg ay naam peut-être man je me dis que du Aliou Cissé le responsable mais responsable c'est la fédération sénégalaise de football et foofu dama lañ koy lancer pour l'avenir loolu ba ñu dalati xam donc et même le stade de Orléans war nañu am stade bu bu tene stade de xam quelques places yo tamit suñu waa ji Sénégal première nation africaine permettre ñi xamante ne diaspora bi xamante souvent ñu gis seeni seeni doomi réew xam bëgg nañu gis Sadio Mané comme ñu koy gisee même si ñooñu Europe mais bok Sénégal je parle xam nga donc seen seeni match amal stade bu gën a baax jouer c'est pas moi Valenciennes jouer stade de de 25000 places xam donc c'est c'est possible donc avec l'aide de Piment ça pourquoi pas xam ak équipe bi nga jàmmaar mais jouer avec Orléans stade bu tuuti bi am xam ku nek khalatam et à savoir aussi tamit que ne ñu wax ne le match fédération sénégalaise de football moo koy on va voir ndax RTS dina ko tek RTS Espion Europe dina ko tek et fédération sénégalaise de football j'espère que du benn caméra comme li ngeen ñu tàn tàmbal ci football local bi xam bu ñuy jouer ben caméra bo ci sen chaîne bi espérons que ce sera plus professionnel ñu mën a match bi sans problème mbokk yi ñoo ngi ñuy euh, défense à 3 xam donc euh, man défense à 3 franchement euh, c'est moins moderne nag ah. football léegi on parle de défense à trois avec des pistons xam nga ay ailier yu xamante voilà mais avec avec notre effectif ak joueurs fi franchement du du lu xamante ne si na waaw loolu dañ ko wara def même si meun nga jël benn jokkoo suñu GIE ak kenn Krépin Diatta si le côté mais presque bi ñu li ñu annonce moy Moustapha Nam foofu man pour man ça n'a pas de sens de mettre Moustapha Nam pour lui donner du temps de mettre dans un poste bu xamante du poste am doko aider quoi franchement bu ñëwee jaar à côté sénégalais na voilà Moustapha Nam mi la ngeen fi doon ciow il n'a pas le temps. Euh, am amul talent bi wala bokk championnat bi mu nekk dafa wàcc niveau bul xam Sénégal lan lay wax du ñu a suivre football donc man Moustapha Name latéral droit xaw ma teg nañ ko si mise en place bi man franchement je suis pas fan je préfère sax Formose Mendy foofu xam nga donc wala Krépin Diatta idem donc man je préfère dégrader suñu système yi xamante ne moom la ñu am parce que ba a dugg si lu xamante ne wóorul même si faut se préparer à tout je peux être d'accord ñu essayer

Euh, un milieu terrain bi xamantani ñu quoi on nous annonce pas de six Pape Gueye Pape Matar loolu la wax xam donc donc en attaque ce sera euh, Sadio Mané Krépin Diata Boulaye Dia wala Diaye li moy mooy euh, li xamantani presse mom lañ la annoncé bu fekkee si toutefois trois défenseurs la ñu classe man franchement ce classement là doyuma loolu dama leen di wax vite fait doyuma quoi mais je préfère un 4-4-2 avec deux attaquants pourquoi pas euh, Iliman Diaye autour de Boulaye Dia ñaari attaquants. ñaari ñaari militaire récupérateur Gana Gueye Pape Gueye wala Gana Gueye Pathé Ciss wala Nampalys Gana Gueye avoir à l'issue la lay def en tout cas le moment de changer de xool yeneen joueur xam donc gisaat ñi ma bon man je préfère pas à part Sadio Mané peut être ak benn Kalidou Koulibaly mu nekk benn ossature maanaam Kalidou Koulibaly Gana Gueye Sadio Mané pour man am na benn ossature liste des yëpp mën nga ko laal quoi xam nga donc 4-4-2 euh, boo xam ne c'est ça deux militaires récupérateurs deux flèches euh, Sadio Mané euh, Krépin Diatta Sadio Mané Jackson en attaque il mangeait, ou tu mets Jackson en attaque nga bolé ou Jackson Boulaye donc il y a différents styles yu xamanté dans un 4-4-2 dans un 4-3-3 avec trois flèches euh, deux milieux terrain récupérateurs ou deux un milieu terrain sentinelle pur comme Pape par exemple pour le participe, et deux milieux terrain relais comme donc euh, pas Sar et et qui peut faire le jeu comme Aliou Cissé dans son idée tout le temps. Euh, Gana Gueye kii la ni koy wax cadre am la da koy bëgg a jox temps de jeu en attaque comme ni waxee man je préfère un joueur à 100 pour cent un joueur en confiance et que Iliman Ndiaye il a sa confiance là Boulaye Dia il a sa confiance là mais c'est pas après blessure impact ci moom quoi Boulaye Dia c'est pas xam donc mu nekk ay dernier info yu xamante am nañ ko trois défenseurs man personnellement à mon avis voilà am na ay moment voilà bu fekkoon Noah mu ak bu fekkee dans l'idée dans dans le season en coupe du monde da ko prévoir pourquoi pas parce que un style bu xamante ne léegi ñëpp moom lañ bëgg xam moom moo nekk en mode bu doon bu doon wax mode maintenant instant yi moo nekk en mode maintenant ñun xam nañu Aliou Cissé euh, en coupe d' li ko gën a aidé c'est le 4 3 li xamante ne am nañu si maîtrise Aliou euh, joueurs yi am nañu si maîtrise parce que bëgguñu dem dans l' aventure si benn mbir bu xamante ne leeruñu quoi et comme que lii leer na te te football football boo joué balaa ngaa joué waat xam nga day yàgg et amuñu fi temps pour togg fi lu ñor lu xamante dans deux mois si benn trois défenseurs mu ñor ñu mën jouer je vois je loolu quoi man lu dëgër lu leer nañ laa bëgg et que 4-2-3-1 bi une satisfaction à 4-3-3 bi may nañu coupe d'Afrique qualifié nañu ci coupe du monde donc euh, à la tête d'Aliou l'UCC, je ne peux pas faire ça ce qui est compliqué dans l'affaire c'est comment mettre les joueurs yi nga xam ne am vécu muy cadre yi euh, mélanger leen ak ñi nga xamante ne un baisse. comment faire ça ça faut juste milieu bi loolu difficile mais pour man à part lolu Aliou Cissé ñëpp dañoo war am temps de jeu tous les nouveaux moom pour moom ça yi andi nouveau te joxoko ko temps de jeu pas intéressant faut donner tout les en deuxième mi-temps première période lépp et même dans le deuxième match et Bolivie Bolivie ils sont physiques ils sont waaw reyante mbëkkante xam nga dajji la euh, bien organisé xam nga tous les mots yooyu bëgg claqué mais techniquement parlant bu ñu bal bu jouer, jouer là la wax et comme ni ñuy wax Bolivie si ay montagne ay montagnes lañu dëkk bu ñu nekkee seen i dëkk yooyu seen di nga sonn mais du moment que jóge nañ continent ñëw Europe rek et que ñun boo xoolee football européen ñun duñ ci à ay joueurs suñu joueurs yëpp Europe lañ donc on maîtrise quoi techniquement parlant bu ñu joué on peut battre Bolivie mais sans problème même avec des changements même avec des nouveaux joueurs xam nga donc euh, man euh, j'espère une victoire xam nga donc euh, xam nga pour la confiance pour donner du temps de jeu et ce sera intéressant bon yi mën na ko vidéo ci commentaire wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di leen wax ba beneen sur Saint-Football TV.